ñaari mbër yaa ngi am ñaari champion ñaari ndaanaan Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Caaka Faye Caaka Faye moo yore ndem lu ñuul ñoom ñaar ñoom tey mën nañu tey bokk nañu ak national Caaka Faye waaye muy Cheikh Tidiane Niang Caaka Faye Cheikh Tidiane ñaari mbër yaa ngi noonu Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Thank you. nee na leen bëre woon nit ñi dañoo bëgg a ñibbi dafay sax Tidiane Niang Tidiane Diaga Faye demi final la nee naa leen waaw Cheikh da koy bëgg a sàcc Cheikh day bëgg a sàcc Cheikh du bëgg a jàppante Tidiane Niang Diaga Faye jàpp rek Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye Thiaka Faye Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane Thiaka Faye Cheikh Tidiane ñaar Thiaka Faye Cheikh Tidiane ñaar Cheikh Tidiane jël na ko Cheikh Tidiane dañoo bëgg a ñibbi dañoo bëgg a ñibbi tëj Thiaka Faye Cheikh Tidiane Caaka Faye Cheikh Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane Ngom Caaka Faye Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang demi-finale si prédit gis nañ Malick Malick si boole superviseur suñu toll nii tey bëgg ngaa def lu gaaw Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Pape yàgg na ñu ngi dina bëgg a ñibbi waaw gis nga Cheikh da koy bëgg a sàcc Cheikh da koy bëgg a sàcc Thank you. ay ca albir sifle waat na diggante Caaka Fay ak Cheikh Tidiane Niang Caaka Fay Cheikh Caaka Fay Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Caaka fay Cheikh Tidiane Niang Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Caaka Faye Cheikh na ay ca ñaari combat yaa ngi noonu Thiaka Faye Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye Cheikh ak Cheikh waaye Obeuli ak général Thiaka Thiaka Faye xam ko mu may waaye Obeuli ak général a nga ca Obeuli ak général Obeuli général Malika Thiaka Faye Cheikh Tidiane Niang Obeuli général jam na jël Thiaka ba mu may mu mel ni général da ko bëgg a manœuvrer waaye Obeuly bañ na Obeuly sol na ko Obeuly sol na général Obeuly sol na général Malika faaxat na ko Obeuly faaxat na ko jëm na ko plaqué général bañ na Obeuly général bu Malika oh une ak général Obeuly général bu Malika Obeuly général bu Malika ñaari mbër général Obeuly général Malika Obeuly ak général bu Malika Obeuly général bu Malika ay waay bu Malika oboli général bu Malika waaye Caaka Faye ak Cheikh Tidiane Niang seen combat bi yàgg na bëre xel la bëre technique Caaka Faye Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang Caaka Faye général bu Malika Caaka Faye Cheikh Tidiane Niang général Malika Obeuly Cheikh Tidiane Niang am na ngemb Cheikh am na ngemb Cheikh Tidiane Niang am na ngemb Caaka jàppul Cheikh Tidiane Niang am na ngemb waaye Caaka jàppul Caaka jàppul fenn waaw Caaka nga ko jéem a amaare Caaka fay Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane jàpp na ba mu dëgër Caaka jàppul Caaka fay Cheikh Tidiane Niang Caaka fay Cheikh Tidiane Niang Caaka jàpp na ba mu dëgër Cheikh Tidiane Niang mba caaka du la amaare da ko mëne moom caaka fay mba du la file caaka fay Cheikh Tidiane ñaa oh caaka fay ak Cheikh Tidiane waaye Obeuly général bu Malika ña nga ca Obeuly général bu Malika demi-finale bu neex Obeuly général bu Malika caaka fay waaw na ko pousse génne ko waaw loolu la waa ji wax nee na ko pousse génne ko c'est waaw bu ko mun na ko amaare tamit Caaka Faye jàpp na waaye Cheikh Tidiane Caaka Cheikh de Niang moo jàpp te Caaka jàppul Cheikh Tidiane Niang dafa naqaree bërël Caaka Faye ak Cheikh général bu Malika waaw Cheikh gis nga Cheikh da koo bëgg na ko caxabal Caaka Faye dan na ko da koy daan ko ëpp doole Caaka Faye daan na Cheikh Tidiane Niang jël ba na doole doxul jàmm Caaka Faye daan na ko Caaka Faye daan na daan na Cheikh Tidiane dafa dafa nekk mbër bu mag Babacar mbër mu mag la. te léegi daa am compétition bu baax. dafa am expérience sax. olympique bu euh, maanaam jeux olympiques ya muy waajal. di tàggat boppam. te xam nga jamono ji mu jamono ji mu ngi si entraînement. mu ngi si entraînement wax na ma ko léegi. moo ngi si moom Thiaka Faye général bu Malika. ak Obali. combat bu métti. ñoom ñaar ñoom ñaar daaw dañ fi bëre woon. waaw dañ xuloo woon. kii ne ko maa la mën kii ne ko maa la mën. ndeysaan Thiaka moom moom général bu Malika ak Obali. Obali ñu bëre Obali daan ko. ok ñu war a bëre waat tey revanche. wax nga dëgg. kii nee na fii la woon fii la woon. ci terrain gaal gi. Thiaka Faye Thiaka Faye Thiaka Faye dem na final revanche la. Obali général bu Malika. général Obali général jëm na ko plaqué da ko bëggoon a plaqué. plaqué bi du yomb de. plaqué bi du yomb. boo xoolee ñoom ñaar ñëpp a dus bukar ñaari poids lourd la. ñaar ñu diis ganna ganna général bu Malika ak Obali. faqat lonk na ko taxabal rëpp nañ kat appui arbitre. arbitre lu mu wax. arbitre amul. arbitre nee dara amul. leeragul. arbitre nee na leerul oh jeexagul jeexagul police yi la waaye buñ ko deful ordre du am gars yi dañuy dugg si. mais mais ko wax. waaw général ku la de. ku mais loolu lamb da ngay sax. dafa ci da def ay action mën a mën a bëre sa adversaire. waaw. loolu la général Malick a nekk di def. dafa bëri de. waaye ëbbali daa diis. bien sûr. oh bu Malick a ëbbali. ndeysaan. ëbbali mbëru maadu jon bi. Obali bu. bu Maadou Jon ngay wax rek. Maadou Jon. Obali bu Diofior. doomu Diofior ak. Obali bu parcelle. ndeysaan waaye général bu Malika bu Malika la. Malika nee na moom moom Jaxaaw. ak yëpp ma ne ko jaxaw mënoo ko mu bàyyil ma def la fa ab surga. moo gën a wóor. général bu Malika. Sey Bukar surga wax nga dëgg. sama grand Babacar eh, daw na jël ko général na tàgg ba. ëbbali bañ na ëbbali bañ na. daw na jël ko ëbbali rasu na. daw na jël ko da ko a ëbbali. ëbbali wax nga dëgg. jël tànkam taxul nga daan ko. tànk ko ca génne. gis naa ordinateur jël tànkam taxul mu daan ko. wallaay wax nga dëgg. dafa mën a tànk moom ëbbali. mbër day am manin. mbër day am manin. yàgg na ci mbër. tànk maninam la moom ëbbali. lu leer nga may wax. général bu na combat ba combat ba final. demi-finale Ndour la Boucar. diggante général bu Malika ak Obali. général bu Malika da ko mën a manœuvrer. général nga koy manœuvrer. général nga koy manœuvrer. général Obali. général Obali. général ak Obali. général bu Malika arrière yi arrière yi arrière yi. arrière yi Ablaye Sare arrière. arrière général bu Malika Obali. général bu Malika ak ñaari mbër yaa nga ca deuxième round Babacar. deuxième round bi dem na. waaw fi ne nii daa am luy génnaat. deux général moo ubbi. wallaay wax na dëgg. Obali di fecc si autorité bi naan daa bëgg ubbi. na nag. lamb ubbi na wane nañ ne ñoom bëggoon na ñoo bëre. lu waay doon jaay day lamb tey. tey mu lamb. ndax nag Boucar fii lay ndaje bi leeree. fiila ndaje bi leeree. ci gaal gi. général bu Malika. 2 millions 500. ak Obali. Boucar. Cey Babacar. ca Lutte TV. sama doyen la. yow suñu booy nga. sama bu yaru nga. waaw bokk na tey si ñi ma njëkk a woo. tey ngaa dugg sare. tuuti jaka ko bi ku dëgër bopp. général bu Malika. ak Obali. demi-finale la. waaye Equivox TV yaa ngay filmé. Babacar ay wax. général bu Malika Obali. lu xewa ci géej. général bu Malika Obali. cey lii. chef. général Malika Obali. waaw filmé fi Babacar day métti. day métti parce que gars yi dañuy jaar sa kanam. pour nga am image bu leer day doon problème. général bu Malika Obali. cey loolu. hey. général Malika ak Obali. Obali moo yore ngemb lu xonq bu Malika moo yore ngemb lu weex li. arbitre day àtte avertissement verbal wala avertissement. am avertissement Obali am na avertissement. nee na ko bëre woo. Obali day am avertissement pour passivité. arbitre nee na woo. général moo gën a général bu Malika waa Obali jëm na ko faqat jëm ko plaqué général sol ko songom kaw wala nga bërëm kaw bëre roofo Obali ak général bu Malika waaw Obali général jël na ko lonku caxabal ba mooy na am na ko Obali sol na ko mu may général ak Obali mbaru daa bi Obali mbaru maadu jon bi Obali général bu Malika. Babacar nee naa leen yi lii la ñuy bëgg di gis ngir am. satisfaction lii moo neex lii daa neex. bu ñu gisee lii am satisfaction. wallaay total total. ñaari mbër yu bëre. ayca. Obali général bu Malika. Obali ak général bu Malika. ñaari mbër yaa nga bu Malika. yàq sama la Jib Sène. doomu ndey Petit. Jibsen bu Petersen. Jibsen joxaguma mayo Babacar. Jibsen joxaguma mayo de Babacar Jibsen joxaguma. non da ngaa am mayo. Jibsen doomu day petit. asel tuuti rek oh jël na ko. général bu Malika. oh rëpp na wala lan rëpp nañ général ak Obali. général bu Malika Obali. général bu Malika ña nga sa suuf. ña nga sa suuf arbitre daan na ko si biir nit ña arbitre da leen di woowaat. général Malika Obali général bu Malika ak Obali na gaa yi toog